ñenn avons député dañ ko dugal pour obtenir une dérogation wax à l'application des dispositions de l'article 31 de la constitution Nous avons dérogation moo boobu moom li fi ñëw bari na boobu ba ñu dérogation aménagement la ko tuddee nanguñu ko wax report waaye lu mun a xew ginnaaw nee na ñenn ci député

door a taxaw nag ne dañuy dajaloo fii pour plénière bi ñu taxawal ko ne dañuy voté loi boo xamee dafay dàq élection yi waroon am le 25 février 2024. plénière yi nag damay wax ne monsieur le président warul am ndax bu dul dara tey jii la ñu jot rapport yi sama collègue yu bari ñëwoon nañ ci. rapport boobu dañu ko waroon jot 24 heures avant la séance comme ni ko l' article 46 du règlement intérieur de l' assemblée nationale waxee. may wax ne loolu yëpp bu dajee Sénégal nanu xam ne yéen laay waxal ñi nga xam ne dañuy jooy ngir démocratie am doole ci dëkk bii ñi nga xam ne patriotisme daf leen ñor ñi nga xam ne dañu respecter la république ñooñ ñoo tax may wax may wax ne tey jii bu ñu seetaanee ba ñenn say député ne dañuy voter loi boo xam ne dafay dàkk ay élection trahir nañ li nga xamante ne nii mooy la république dañu war a respecter le calendrier électoral ndax loolu suñu ko defee coup de temps constitutionnel te yéen sax nag waaye yéen Sénégal gii jafe-jafe yu ñu nekkee askanu Sénégal mettit bi ñu nekkee ñu bari amuñu liggéey ñi ci réew mi dañuy chômer ñi ëpp ci réew mi tey jii seen loxo jotul seen ginnaaw bu nu la añee du nu reer ñi ëpp ci réew mi désespoir tey tax nañu ñu génn dëkk bi dem ci yeneen réew ne ñu ngi wuti lu nu am ñii yegg nañ ñëpp des ci géej gi yaan leen yàlla yërëm ñeneen ñaan ci kaso yi fees del te ñu si bari ñoo yoroon seen kër yi waajur di leen jàppale ñi fi des kës néew néew ak a bari ne dañu am espoir ndax àdduna loo gis dafay jeex ñu ne le vingt cinq février deux mille vingt quatre bu élection amee ñu jële fi kii nga xam ne mi ngi fi te amul yërmande ci réew mi muy Macky Sall nguur gii nga xamante ne nii amuñ yërmande ci réew mi soucié wuñ ci problème u sénégalais yi ñu jëlee leen fi teg ci ñu am yërmande ndax ngir dem yërmande ci réew ngeen ne da ngeen di dagg espoir boobu nga xam ne peuple sénégalais moom lañu am ne da ngeen di dàq ay élection naan aménagement ñii naan déedéet du report ndax annulation suspension lu ngeen ko mën a tuddee loolu duñu ko nangu te loi boobu kenn du ko fi voté ndax peuple bi nangu wuñu ko te ñun nag ak groupe parlementaire bi ma bokk mu Yewwi Askan Wi ak mboolem koo xam ne Sénégal da laa ñor peuple bi ñor la duñu ko def tey duñu ko def suba ndax peuple bi lu ñu bëgg la ñuy dañ fee nekk ngir ñoom duñ leen trahir et ce serait scandaleux vraiment de voter cette loi si nan dañuy dàkkee élection du ñu ko def tey du ñu ko def suba. incidence financière yi ñu bari ñëw nañ si am na kay am na ndax baas yi commencé noonu takk pour ne dañuy installer ay bureau de vote kon xaalis dugg na ci ba pare ñu dem ba taxaw ci campagne ñu ne waa campagne boobu dañu koy dagg dañuy ajandi élection yi waxtaan. loolu lañ ne du fi amee ndax li peuple bi bëgg loolu la ñu bëgg te ci loolu la ñuy ànd ak ñoom ndax ñoo ñu fal ñoom la ñu fi nekkal parti politique nag ci lañ jaar ñëw waaye nekkuñu fi fu ñu toll naan parti politique moo ñu fi lu ñu wax ñu ne gongo li peuple bi bëgg loolu la ñuy def non au coup d' état constitutionnel dañuy respecter le calendrier électoral li peuple bi bëgg loolu la ñu bëgg incha allah noonu lay demee salaamaaleykum wa rahmatullah merci